Assalamualaikum, ma Amadou Baro Sénégal ah gars yi ma dellusiwaat wat yi ah bëggoon ñu taxaw seetlu ha ah, ñu waxtaan gay Dubai, la xew dubai bu ñu lu xew dubai ñu jóge fa wax tamit lu xew si alu mbaaw bi alu mbaaw bi tamit insécurité ba fa nek tamit gay doyna war war nañ si wax buñ ci jógee nak ñu wax si Barthélemy ak li jot xew si. maanaam coowal politique beeg ak menace réseaux sociaux yi ak jote julli bi lépp dinañ si taxaw seetlu gars yi kon bu générique bi rombee rek dañ andi vidéo bi andi taxaw seetlu yi andi montage yi lépp liñ si jote liggéey wan leen ko gars yi yaa ngi a Baro Sénégal soo abonnékul da ngay bës cloche bi da bës touche bu xonk bi nga abonné soo abonné ba pare nag nga bësaale cloche bi bu ko defee vidéo bu ñu andi rek est-ce que tu connais cette ville de Dubaï personnellement. Gang, gang, gang! tu l'as déjà visité. Je euh, je comprends pas votre question. Ah! Est-ce que tu connais Dubaï Est-ce que tu as déjà visité Dubaï euh, Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï c'est l'actualité, donc on... Se... Non, je comprends pas. Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï. en tant qu'influenceuse, ça serait bien que... Mais ça a quoi à voir avec moi c'est juste dans la vie qu'on fait. Mais non, je ne comprends pas. Ça quoi avec moi Parce que quand moi je pars à Dubaï, je pars avec mon propre argent. Quand je pars à Dubaï, je pars avec mes propres cartes de crédit. Quand je pars à Dubaï, non. Non, non, non, ah non. Non, non. c'est quoi tout ça Porta-porti, c'est le nom qu'on donne aux toilettes et quand on ajoute Dubaï dessus, ça veut simplement dire toilette humaine. Porti. C'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je vous explique. le portail consiste à nourrir le vice de certains Émirats très très très très riches. Comme moi. Tu mangeais le caca de gros monsieur comme moi. Lord of Jesus. Ta c'était ça. Il y a beaucoup d'influenceuses qui sont parties à Dubaï et quand ils sont arrivés à Dubaï, elles sont rentrées souvent dans un réseau ou bien souvent on les a détectées. Donc il y a beaucoup d'influenceuses qui sont venues de notre continent, qui ont vraiment participé à ce porte à porte qui consistait vraiment à soit faire le cra boum boum avec des enfants de, de 12 ans. Tout est gâté. Ou bien qui consistait à faire du poupou dans leur bouche faites comment Retour de tout ça, ces femmes, ces influenceuses sont renumérées en fonction de leur qualité de porte-à-portier. Eh Dieu. Cette jeunesse-là, elle est à la perdition. Au début, on ne le prenait pas au sérieux. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe En même temps, quand on fait le point sur le train des vies des influenceuses qui vont à Dubaï, dans des belles maisons, normalement, c'est Dubaï, c'est un point de commerce. L'affaire, vous partez faire à Dubaï là-bas, on ne vous voit jamais. Vous, vous êtes parti faire vos affaires. Vous dites, bon, je suis parti acheter un conteneur d'habits, de, de, ou bien je suis parti acheter un conteneur de human ou bien des boîtes que ça chez tel marchand. Quand vous partez là-bas, vous ne montrez jamais où vous êtes chez vos fournisseurs à Dubaï, là-bas, vous êtes parti prendre vos marchandises. Hein, hein, ça, on ne montre pas. C'est qu'on montre seulement, c'est où on est couché à l'hôtel euh, avec les sacs à main, avec les chaussures, ou bien on est sur les chapeaux ici. Là, c'est ce qu'on montre. Tu dis que tu es parti pour faire affaire. Tu es parti pour, pour, pour, pour acheter ta marchandise. Mais montre-nous un jour où tu es chez ton fournisseur là-bas. Ça, vous ne montrez pas. Je donne un exemple. La femme des grands pays là. Hein. Elle est chez mon femme, tranquille. Elle est influenceuse quand elle s'élève. Elle sera à Dubaï. Ce n'est que les gens C'est quel travail vous faites là-bas Quel travail fait qui vous donne beaucoup d'argent comme ça Tu as l'argent, fais quel travail Je connais des fans, des fans multimillionnaires. J'ai pas besoin de coucher avec quelqu'un pour qu'on me... Oh, on me donne beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Oui, oui, les femmes battantes, on a votre dossier ici. vous donne la migraine. <laughs> C'est la vie des gens. Les gens sont libres de faire de leur vie ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'on dit influenceuse qu'on sait que nos influenceuses, il hein, y en a qui sont de très bonne moralité, ah. qui se livreraient jamais à ce genre d'actes. Faut pas parce que non, en Afrique là-bas, il y a beaucoup d'influenceuses qui ont fait ça que on va commencer à traiter nos influenceuses de mangeuses de caca. Thank you. Donc je tiens à vous dire qu'il faut rester professionnel. ñoo fi des de deux comme cinq pour cent ñoo dul def lu ñaaw ñi si des yëpp cagatu bu metti lañ fi nekk yi muy muy góor ñi muy jigéen ñi muy góor ñi muy jigéen ñi jigéen ñi moom loolu lañ fi nekkee góor ñi tamit loolu lañ fi nekk fii ngay gis góor bu jël bu jël lal mu woo benn jigéen ñu nekk ci ci néeg bi léegi moom jigéen bi daal moo koy resal moom daal kat rek loolu la koy faye na ko kat rek waaye du fay ne léegi yow nga jóge senegal sa baay ne sama doom ma ngi Dubaay di liggéey ndekete yow yaa ngi fii kattante bu metti rek nga fi nekke Adebayor mooy wax de ñoom xam nañ ma man du nee naa leen Fujera Dibala nekk yéen doomu senegal doomu senegal bi nekk Dubaay Adebayor Dubaay la nekk te nekk Fujera Diba Fujera Diba Diba foofu laa nekk man lu may wax nii lu ma xam la lu ma gis sama bopp lu ma teg sama bët la du lu may làmbatu la rangu nag maa ngi def lo tout pour naar bi dox ma ay dossier waaye naar bi moom it te demoon mu des daa bañ ba tëdd ci suuf moo tax axoon démb ma bëgg dugg di leeral affaire porte à porte boobu na sénégalais di ñëw fii loolu lañ fi nekkee loolu lañ fi nekkee maa ngi dem Dubaay wuti ay marchandise da ngeen di fen cagatu bu metti ngeen fi nekkee cagatu bu metti yi ngeen fi nekkee leen rek laa bëgg si ci yéen rek weddi li lu may wax weddi leen ko centimètre génnee leen ko ci lu may wax ni génnee leen ko centimètre centimètre génnee leen ko ci lu may wax man ak yéen la fi man maa ngi Dubaay nekkuma Sénégal de Dubaay bii laa nekk ci biir xam Dubaay nag nekk ouvrier lu may wax na ngeen ci weddi virgule virgule dindi leen ko man ak fi léegi Sénégal ma ne ma taal Sénégal mu takk léegi yow doo ma defal doo ma defal lenn. boo leen jekkoo del de leen photo de loin. nga ma envoyé laa bëgg moo tax ma ne leen lu may wax ni nañ ko weddi rek nañ ko weddi rek loolu laa bëgg man damaa bëgg ñu weddi lu may wax. yow daal del photo ñoom nañu génn weddi mètre nañ ko dindi. beneen photo beneen bu ci topp mooy beneen bu ci topp beneen bu ci topp. ñu ngi arnaqué fi ay sénégalais. loolu tax na loolu gën na metti ñoo ngi arnaqué ay sénégalais ci visa bu jar 1000 dirham fi 1000 dirham 1000 dirham Sénégal mu ngi doon 142800 actuellement waaye bo ñu gisé sénégalais buy ñëw fi dañuy naan sénégalais bi visa bi 1 million 500 visa bu jar 142500 ñu ne ko 1 million 500 man maa ngi seen kaw yéen doomu Sénégal bu nekk du Dubaï Adebayor mooy wax man maa ngi seen kaw jiji ma bàyyi la nga continuer ñeneen ñi mën a dugg. jaajëf jaajëf jaajëf mooy affaire ville de Dakar daaneel nañ xalifa Sall tey jii nee nañ ay recrutement yu Guy Marius Sagna ak ñoom capitaine Touré. mais ñaari personnes yooyu xam ne coûté wuñ ville de Dakar un million de francs lan la mën a coûté ba mu war a jaral ñu ñu toog ci ju bis journée du kii nu mu tudd fête du travail war a wax ci liggéeykat yi ak coono yi 7000 entreprises ci Covid 19 teg ci réew mi. yooyu yëpp nga war ci wax ndaw ñu bëri di tendeefal mun ñu dem ñu ñuy dàq ci entreprise yi sans droit nekk ci réew mi ñoo xam ne da leen di dàq sans droit jooyaloo leen ñëw di lijjanti affaire problème ñaari nit naan maire bu ne maire yi ñaata yoon lañ fi yàgg di recruter di jël ay décision wala ñi def ay prestation de service loolu dafa yàgg ci Sénégal maire yi noonu la ñuy doxee mais nga ñëw tey ji pour deux personnes nga bëgg ko def un débat alors que du yoon recrutement da nga ko war a teg ci yoon mais loolu lu fi yàgg la nga yàgg ko gis te noppi mais il suffit que ñu jël capitaine Touré wala guimaru Marius rek nga bëgg ko def un problème loolu du yoon ñaar ñooñu ñu leen bàyyi ñu liggéey parce que waaw ñu ngi wax ci waxu capitaine Touré d'abord capitaine Touré d'abord tay dañ koy defé da ngeen tatchul ma capitaine Touré parce que capitaine Touré dañ ko noron décorer tay Sénégal ñom bañuy complot sen complot capitaine Touré su gëmulon yalla dama né capitaine Touré ay mbokam ngi may dégg su gëmulon yalla peut-être tay dina dégg beneen grade wante nag su ko defoon tey senegal di ngeen dégg lu ëpp 14 morts capitaine Touré que Dieu vous garde et que Dieu man maa ko Guy Marius Sagna nag moom tey senegal ci gàttal amatul syndicat balaa may dee ay syndicaliste di dugg ci lu ngeen xam ne seen yoon newu ci wante nag yàkkamtewuñu fi kenn waaw syndicalistes, ngay les travailleurs de la ville de Dakar Fille mairie de Dakar di ngeen gis nit buy master 190 000 francs yu ak Voici où les syndicalistes qui parlent pour le nom et le compte des travailleurs de la ville de Dakar doivent parler man man dama ne. question bu ma parce que il faut qu'on se comprenne ngène rek presse bi ab s'il vous plaît sénégalais ñu ñuy ab ab exemple parce que waxuma Wakou conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion parce que poste beaucoup. mais bureau municipal bi es adjoint au maire de Dakar en charge de l'action sociale le bureau municipal mais qui conseil municipal bi président président commission action sociale maintenant maire de ma Je man kan mo may sur suma cabinet de l'action action sociale kan dama Guy Marie Sagna est nommé par le maire de Dakar comme conseiller technique en charge de l'action sociale il le restera il demeurera Nous nous ñu taxaw ne capitaine Touré capitaine Touré fan de Nékon, du gendarmerie fan de l'école du gendarmerie de section des recherches lan lañ fay liggéey su nekk sécurité Amon na ben jigen décision mon nekk dama signé par madame le maire Soam El Wadini. excusez-moi par monsieur Khalifa Sall ngi parce que dañu taf dañu taf pour ñi article 1. ñu ne diw Nous té muy jigen nommé nañ ko conseillère aux affaires communales nouvellement engagée non dañu sommes koku ji dañu né jigen bobu mu s'il vous plaît rek mu aux affaires communales nouvellement engagés par contrat numéro tant tant tant bar VD moy ville de Dakar du 22 novembre 2011 est nommé conseiller technique du maire de la ville de Dakar chargé de la sécurité urbaine. fan le préfet Dakar Nekon. fan le président Nekon, nommé jamono nommé trésor président man ma décision décision cabinet c'était le 6 décembre 2013 dañu article 1er, Mom conseillère aux affaires communales nouvellement engagée par contrat numéro 10, bar ville de Dakar du 22 novembre 2011 est nommée conseillère technique du maire de la ville de Dakar chargé de la sécurité urbaine Mignini, man ma yoon may sañ-sañ ma cabinet man ma jël décision du 21 avril 2022 Mané contrat je dañ koy arrêté suis Djigen boobu Mané contrat Bobu. dama ko remplacer par capitaine Touré waaw loolu damay Je suis je rek kana

même de bloquer même les salaires au trésor, je dirais à qui le droit de faire ce qu'il a à faire pour que les personnes qui ont contracté avec la ville de Dakar puissent honorer leurs engagements avec la ville de Dakar et que la ville de Dakar puisse aussi honorer ses engagements avec ces personnes. parce que nous lu tout dama xeex su jotee ku xeexul doo gor doo doonu gor dama ne capitaine Touré ngeen may ma rek dama ne capitaine ture juddoo Sénégal yaroo Sénégal dëkk senegaal ñu nekk ko moom moom du liggéey Sénégal fii dëppul kees jaayul suuf nappkatu kees yi xam nañ leen jaaykatu suuf yi xam nañ leen sàccul sàcckat yi xam nañ leen nga taxaw nekk que moom du fi liggéey Sénégal ndax lan parce que da ngeen doon complot mu ne moom nangul dugal loxoom ci complot bi comme na ngeen mbir bi ñi la demee dama décidé moomeelu kenn dëkk bi 1960 la amee indépendance président Senghor nekk président dem président Abdou Diouf dem président Abdoulaye dem président Macky Sall on n'acceptera plus la violence le harcèlement et la discrimination exercée sur Guy Marius Sagna et le capitaine Touré. Et les centrales syndicales sont interpellées. Le maire de Dakar que je suis, je refuse à partir d'aujourd'hui de cotiser dans n'importe quelle centrale syndicale qui ne respecte pas aujourd'hui un minimum de décence. Et je refuse de reconnaître un quelconque responsable syndical qui confond Pomme de terre et Angleterre. S'il y a des syndicalistes qui pensent que la position qui est la leur est une position de jouissance, parce que nous, dès que nous xam lepp man nak dama ne man bokkuma ci xeetu politiciens yi chantage kuma ma woo ci ma fekk si la ci jamm kuma ma ci ay ma xam suma bop ma téy suma bop et je marche vers l'essentiel je le dis et je le répète le bureau le bureau de l'Organisation internationale du travail sera saisi par les conseils juridiques de la mairie de Dakar les conseils juridiques de la mairie de Dakar vont porter le combat à l'international contre la discrimination, le harcèlement et la violence dont, font victimes Guy Marius Sagna et le capitaine Touré. C'est inadmissible. Ce sont des citoyens sénégalais, ils jouissent de tous leurs droits civiques, ils jouissent de toutes leurs compétences psychologiques, ils ont le droit de travailler dans leur pays et pour leur pays. N'en déplaise à des personnes qui malheureusement sont en fin de carrière ou dans, un, un désarroi. Donc je tiens à le dire avec force et je tiens à inviter la presse à traiter l'information sans aucune sensation et sans aucune passion. Et je voudrais terminer en disant une chose. Si ceux qui ont parlé de révocation, en le parlant, en parlant de révocation, ont peut-être pensé à la mairie de Dakar, je les invite respectueusement à retirer leurs propos. Pour la stabilité du pays et pour la stabilité de leur gouvernement. C'est ce que je peux dire. c'est qui si et c'est qui station bi mu ne ma nga wàcc foofu noonu xaar booy bi si station bi waaw station Kermassar, ma xaar ko fofu non. yàggul sax mu woo ma mu après ci daje après ci laa topp ñuy dem ñuy dem ba léegi ñu ngi génnee si dëkk bi. ma ne ko foo may yóbbu nii mu ne ma kaay ñu dem rek sama sëriñ fu mu la fu mu la fekkee ne waxoon na ma mu ne am na fu mu lay yóbbu fu ñuy dem ñaani ji boo leen paree foofu ngeen ñëw si kër gi may may may mottal lépp ma ne ko amul problème après ci lañ dem man xaw ma woon si àll sax après ñu dem ñu dem ñu dem ba ñuy waaj dugg si dargaseem bi ma ne ma ne ko booyee mu ne ma ne ko taxawal. fan nga may yóbbu nii mu ne ma kaay ñu dem rek sama sëriñ bi fu mu la wax foofu la ñuy dem bul tiit bul ragal lu baax nga may defal man mii man man nga defal lu baax te du ma la fay lu ba lu bon noon laa jàng laqad jaakum rasul min ne ba mu motal e, ba mu mot ñetti yoon ci lañ dugg dem waaw sama karaw bi mu ngi commencé di e, defu action yi sama xol bi itam mu ngi def wit mu ngi ko kii quoi ma sentir ni kii fu may yóbbu ni du jàmm mais wax naa ko moom nee ne lu baax laa ko defar te du ma fay lu bon ci laa ko topp ñu dem ñu dem ba ñu mu duggal ma si roko ci ci àll boobu noonu ba ma dem fekk seen kàmba foofu noonu waaw mu ne ma fii la sama sëriñ bi fii la ma waxoon ma ne ko ah mu ne ma waaw mais maa ngi xool côté yëpp sama xel bi dalul quoi sama karaw bi ak xool bi sama fit bi taxawul quoi après ci la ma wax ni mu ne il faut ñu julli ñaar rakka ma ne ko ñaar rakka fii mu ne waaw ma xool si suuf mais tànk li ma gis foofu noonu du tànk jaam ma ne ko fii de mënumaa julli fii ay ay booru eh, cinq heures eh, cinq mu ngi waaj a passé quoi six heures mu bi ak xool bi sama fit bi taxawul quoi après ci la ma wax ni mu ne il faut ñu julli ñaar rakka ma ne ko ñaar rakka fii mu ne waaw ma xool si suuf mais tànka li ma gis foofu noonu du tànka jaam ma ne ko fii de mënumaa julli fii ay ay booru eh, cinq heures eh, cinq heures mu ngi waaj a passé quoi six heures mu ngi waaj a dugg parce que mu ngi waaj a si yooyu noonu quoi mhm. ma ne ko fii du ma mun a julli fii guddi la ma waxoon mu ne ma ñëw ma ne ko man du ma liggéey man du ma ñëw guddi parce que guddi damay liggéey usine mhm. parce que mënumaa ñëw guddi mu ne ma ne ko mu ne ma ñëwal guddi rek guddi moo ma arrangé parce que client yi dañuy bari guddi rek laa am jot ma ne ko mënumaa ñëw guddi guddi boobu tan dafa lëndëm te aussi ma la xamoo ma après ci la ma wax ne julli ma ne ko duma julli julli duma julli ñuy werante foofu noonu mu ne penc bi nii la féete ma ne ko loolu musuma kaa ji si depuis ma juddoo ba léegi musuma kaa ji penc féete nii après ma ne ko nii la wala nii ñuy werante loolu ñuy werante ma ne ko man taalibe la nu mu mënta néew ne xam naa li ma lay wax nii xam naa ci mais nii depuis ma juddoo mosuma kaa gis lii lii lañ noonu la ñuy werante njëkkite ñoom programme nañ lu ñu war a programme lépp après ñuy werante foofu noonu rek mu jékki-jékki rek mu ne leen ko ji leen ko balaa muy wax ko ji leen ko damaa xool fu lëndëm mi foo xamante ne mu ne ma ma eh, côté bu ñuy julli ni mu ne ma jox ginnaaw fi ma wóolu loolu ma foofu saaku bi ma ne ko waaw saako bi loolu moom ma tere julli bu du woon saako saako yu mag yi la quoi ma gis foofu ñu takk foofu noonu ay saako mais non benn saako laa jis si waaw boobu laa jot jis parce que foofu defal dafa lëndëm wallahi moo gën a dem guddi parce que foofu nu munoo xool foofu noonu ba xàmmee foofu lu fa nekk munoo xool foofu ba xàmmee ne lii lu fa nekk mais saako xam nga dafa xaw kii quoi dafa xaw weex looloo tam may ma gis boobu noon man laaj ko saako bi lan moo si nekk bi ñuy werante affaire julli bi parce que saako bi laa gis il faut ma laaj ko te li ma gis foofu noonu xool naa lépp te gisuma benn xeer côté yi ma ne lii xam naa ne lii li ma gis nii ñaaw njort na sama xel bi lu ma jox ay bopp nit la ma ne ko lii saako lan moo si nekk mu ne moom xamul si mam bi dafa dakaa wax ne rek mu indi ma fii loolu rek mooy affaire am bi. da ngaa gis bopp da nga ko xelmate wala. waaw man jotuma jotuma kaa eh, dem xool mais li ma gis daal du ay xeer du dara ay boppu nit la. ma ne ko lii saako bi te yow yàgg ngaa ñëw fii te fii ngeen fii ngeen di nekk toujours léegi lan moo tax saako bi lu fa nekk nangoo ma kaa wax boo ma ko waxee ma julli mu ne moom xamul daal lu nekk ci saako bi ci bi ma bañee loolu mu ne leen mu ne gars yi ko ji leen ko njëkkati gars yi ñu ngi toog foofu di may xaar. waaw ñu ne foofu lañ nekk bu ñu su ma julli woon wax boobu man du ma daw sax du kii teggi sama tànk sax ñoom foofu la ñu may ñëw fekkee mais nangu maa julli saaku bi ma gis foofu loolu loolu ma tere julli waaw saaku bi moo ma tere julli parce que yow mënoo dëkk dëkk si mbir nga ne foofu xamoo lu fa nekk sama xel bi ñaaw njort na mu ne sama xel bi mu may wax ne fii boo jullee da ngay fii xoolal tànka yi lii du tànka jaam nu mu xóotee noonu du comme ñuy xeex ñu doon xeex foofu rek noonu la mel si man ma bañ ci la wax ne gars yi ko ji ko rek ñu génnee si waaw mu ne leen ko ji ko moom baat boobu rek la am waaw ko ji ko rek après ñu ñu départ viriri rek si si si dargaseem bi ci laa xam ne ñii soxlawuñ dara sama bàkken bi te yegg naa ko xam naa ko yegg naa ko parce que action nu muy demee nii laa xam ne fii bàkken day rocc fi ñu dàkka ma di may dàkka ñu yoroo ay jaasi damay dàkka ñuy ñu dàkka ma ñu daw ci àll bi di da di daw ci àll bi di daw si àll bi ba ma dem génn ci po apias bi quoi ci laa taxaw si ram bi rek benn yoon ñaari yoon rek ma tëb taxaw si apias bi rek may tàllal sama loxo yi pour oto yi oto du taxaw foofu waaw fekkee na ñu ngi ñëw surante wuñu nag mais fekkee na tëb naa ba pare taxaw na léegi ñu ngi may xool est-ce que oto dina ma ñëw jël si wala du ma jël si xam ne loolu moo leen tere pour ñu waaw fekke si ma après ci la borom moto bi yàlla rek akum fa yakoon moo ma dimbale ba borom moto bi ñëw taxaw sama wete mu ne ma lalla ba ma tiit mu ne ma lalla fekke na mënuma wax sama yaram bi mu ngi kii quoi ma ne ko lu baax laa defar ñi ñu ñëw fay ma lu bon kii nee ne lekkul ñaari fan amul kere lu muy diggante ak sirimam bi ma dimbale ko mu mu ñëw fay ma li njëkkate man lañ bugg a rey ci bi kooku mu ne mu taxaw saagaleen foofu ay ponkal mu saagaleem foofu noonu fekkee ne ñu ngi taxaw waxuñu benn ki ñaar niti ñetti lañ mais keneen gi dañu kaa bàyyi foofu ku ma defaloon teraanga kooku bàyyi naa ko foofu kooku waaw ñaari rek ko jëleen ko ñoom ñoo ma topp. ba xam ay sénégalais ban làkk la ñuy làkk. seen eh, sirim bi day làkk bambara day làkk bambara waaw mais day làkk olof ak bambara ñaari yooyu la la la may wax quoi bambara ak olof. waaw. waaw booy bii de booy bii de kooku dafa xaw ñuul mais ñaari gars yi keneen gi dafa njool mu ñuul keneen ngi xees keneen ngi xees ñu ma dakkoon ñu yor jaas yi waaw keneen gi dafa ñuul keneen ngi mu jool keneen ngi xees mhm. après ci la borom moto bi jël ma ba mu wàcce ma si pont bi mu ne ma léegi da ngay wàcce fii jël oto dem fekke na réer naa complètement mënu maa wax ci oto bi fekkee na sama yaram bi nii la képp ku ma laaj du ma la wax dara bien yàlla def bi ma ñëw fii comme doomu aadama yi eh, man jullit laa eh, diggante boobu aw ma ku may jàppale pour ma dem yóbbu ko si rajo mais usine fi ma doon liggéey gars yi ñu ne duñ ko bàyyi noonu parce que responsable bi yëpp tey fii la parce que boo mëntee fii yii ñii buñ la reyee ñun ñooy jël responsabilité bi ko après ci la ànd ak ñoom baaw ma dem waxtaan ma dem expliqué leen ñu ne ma demal Kër Masar foofu noonu waaw si gendarmerie bi waaw ma wax leen lépp ñu ne ma demal Kër Masar ma dem foofu noonu waa ji ñu fekk foofu mu expliqué ma mu ne ma jéemal yeewu fii fii Dakar la dox daje la boo yeewul fii dañu lay rey léegi. gendarmerie bi moo bi moo ma wax loolu ma xam ni esa bi wax bi kay moom fi ma doon yaakaar foofu kay tas naa ma oññee ko ñibbisi waaw parce que découragé ah léegi man foofu laa yaakaar pour ma ànd ak ñoom bi foofu mais mu ne ma léegi fii Dakar la expliqué na ma nu ñu lay reyee yëpp nu ñuy jullee yëpp wax na ma mu ne mu ne dañuy dañu lay wax ne nga julli ñaar rakka ñaar rakka boobu foofu la lañu lay ñëw fekkee dagga sa boobu fekkee na yow koy pare nga. ma bi si boppam moom moo la expliqué lii nga fa dund. moom ma expliqué loolu moom ma expliqué mu ne ma fii dox daje la jéemal yeew. moom comme xam nañ lu fa nekk parce que li nga fa dund ñoom ñoo la ko njëkk a nettali euh, la nga xamante ne moom nga fa dund muy muy exactement ni mu demee kon mu mel ni xam nañ lu fa am léegi lan lañ la wax pour que ñu def seen liggéey wala dem wàcc fa wala jéem fa def ay investigation ay saytu non waxuñ ma dara waxuñ ma tous pour seen liggéey boobu pour ñu ànd foofu waxuñ ma côté boobu buñ ma ko waxee rek parce que du man kese dama àndoon feexu benn garant usine ba ñoo bokk fu ñuy liggéey après kooku nee ne du ñu bàyyi noonu il faut lii ñu topp ko gendarmerie bi bi ma waxee loolu ma xam ne man amatuma fi ma yaakaaroon foofu léegi tas na il faut ma oññeeku dem jàpp sama liggéey bi waaw noonu la affaire bi noon la fa demee. doy na waar euh, ngir balaa ma laa bàyyi ban appel ngay lancé ci li nga xamante ne nii moom moo am foofu nga jot ko dund. comme appel comme waaw comme doomu aadama yi rek ñu nekk Dakar fii parce que man xale la comme ñëw naa nii Eh, man maa ngi ni rëcc naa am na ñoo xamante lan moo tax ñu si bëri bëri xamuñu ko man bi ma nekkee xale laa laa doon dégg sama papa moom muy wax loolu may dégg nit yi ay dëggkati bopp yi am nañ ay reykati nit yi am nañ mais wóolu ma ko woon ba jour bi ma dem foofu noonu laa xam waaw comme doomu aadama yi rek dafa am na loo xamante da koy oyofal fekk oyoful am na ñoo xamante su ma lay expliqué ñu reetaan ba ñuy daw ñu ne ma eh yow dangaa ñàkk a fayda ma ne la waaw dañoo jàppa lu oyofu te doomu ada lan moo tax ma wax lii pour ma ma wax ko lii si télé bi ñu si bari bari nañ bàyyi xel am na ñoo xamante ne dem nañ foofu yàlla dimbala ma man rëcc na mais am na ñoo xamante ne du ñu rëcc de kenn du leen xam ponkal bu tolli ma nii nga dégg ko réer na si dëkk bi réer na diw réer na diw réer na loolu yow yow loolu loolu du jàmm loolu du jàmm dañ kaa rey parce que Dakar nu munta nganda nganda kay mu man fi ma toll nii waru maa réer si dëkk bi même xale sax boo dajale ku baax keneen gi mun na baax mun na laa wax ne yow foo dëkk Tingeej wala Kirinjaaylo wala Bambilo wala Sangalkam mu ne oto bii ngay jël wala mu dimbale te yàlla tax mais nga réer carrément fii loolu loolu nañ xool loolu loolu ay ay réer réer njort nga ne ñoom agression la dañuy fokkat alalu jàmbur yi wala lan moo leen poussé ñuy def li ni mel. waaw mais waa ji wax na ma mu ne ñii dañuy soxlaay bopp nit yi yenn xool nit yi yoo xamante ni ñu ngi tëdd si hôpital benn waa ji wax na ma loolu. mu ne ma dañuy jaay genre yooyu loolu la ñuy ut borom alal yi fay la lu seer ñu ñëw defu lii waaw ma ne ko mais seen rakka yi ñu ngi foofu seen mag yi ñu ngi foofu duñ dem jàpp ñoom ñu yóbbu leen ñu rey leen koo xamante ne dañ kaa yaakaar yow nga dem nax ko rek mu defal lu baax rek nga dem fay ko lu bon rey ko ma ne lii kay moom lan moo tax may wax Sénégal yëpp pour nit ñi doomu aadama nañ yow ku la wax ne dimbali ma koo xamante ne xamoo ko man daal képp ku ma wax ne may ma saam faran saam li may ndekke dama la wax ne deyal foofu sama yoo nekku ci jox naa la sama ginnaaw dem ma dem parce que lan moo tam ma def lii pour nit ñi ñu yeewu ñu xam ne luy dox si dëkk bi dafa garaw am na ñoo koo xamante ne dafa neex nga ne kii ku baax la defar naa ko teraangu mu lay jéem a di lay xëcci pour dem fii ni bul nangu bañal am na lu muy feexe si suuf bu la jaa bu la tegee loxo rek dootoo gis àdduna loolu laa loolu laa mën a wax doomu aadama yëpp ni képp jullit ku nekk si Sénégal loolu laa la mën a wax pour ñëpp ñu bàyyi xel loolu waaw. jërëjëf euh, yi donc euh, sant nañ ko bu baax a baax gërëm ko euh, ci li nga xamante ne ni partagé na ko ak askan wi ak ñëpp ñu ñuy teewlu di mbir mu doy bi nga xamante nii ni fi la xewee ci Sénégal ci forêt classée bu Mbao ñoo ko déggandoo am na ñu fa nekk di faat ay doomi aadama si biir bërëb boobee di fay rey ay bakkan te moom mii dund na ko yaakaar naa dégg nañ lu mu fi nettali mu leer nañ ba tax na kon ñi nga xamante ne ni ñoo ŋànk wàllum yoon yor suñu kaaraange si suñu réew mi di Sénégal bëgg nañ ñu def si ay saytu ngir rek karangi askan wi ndaxte. waa gars yi li moo nekkoon vidéo bi han ah, taxaw setlu bi la won ngeen xalat nak du xol lan moy wara nek priorité Sénégal lan la wara xol lan la wara lijeenti mo lijjanti gën ñu nek fi di polémique si ay yo xamantene amul ben bop amul ben sens parce que bo xolé li xew dubai bu ngeen me ba jël ko def ko sen problème han ah, te mbaaw yi ngi nii xoolal li waa expliqué biir mbaaw si àll mbaaw bi léegi nag ratissage day am wala lan mooy am waaw di leen jox dig daje si prochain vidéo bii di ñuy amalaat di leen wax ko abonewul bul fàtte bés bouton bu xonk bi nga abonné boo abonné nag cloche bi balaa ngay quitté mën nga xaaraale vidéo bii mooy vidéo fin bi am na vidéo bonus الله يقدم أمره وسره جبريل وميكال إسره فأخلا بشمس بين بدرين في جرى فرنا مبارج ومساهب عباد تعرف عدره ينن وهذا ينقي للرسالة صدره وهذا بأمر الله يقدم أمره وسره جبريل وميكال إسره فأخلا بشمس بين بدرين في جرى هرنا مبارج صاحب عباد تعرف عدره ينن وهذا ينقي للرسالة صدره وهذا وسراو جبريل وميكال إسره فأخلا بسمس بين بدرين في جرى هرنا مبارجة 我和。